du dara waaye doom sama takkaayu or bi rek laa bëgg. <laughs> ak Maggi jigéen bu ne bidéo la. yii madame Sañse amul. bàyyi ça va vermicelle amu fi de. jeex na mais après dinaa ko jënd. waaw d'accord baax na. ciao ciao. ciao ciao Manta. ciao ciao papa bàyyi li ngay def yow tamit bàyyi stress bi. xëy na Youssou dafa amoon ay yitte rek mais na t'inquiète surtout pas lépp dina baax incha allah tamam canım. danga dem marché ba ñëw. dama yóbbante ndugg. yóbbante ndugg. looy tëdd. Nafi laa yóbbu ne def mu yóbbante marché madame Dia. Nafi man kon marché yàpp sa jëkkër ngay duggee. yow yàpp nga sa jëkkër ba yóbbante Nafi. lan moo la jot ba mënoo duggali sa bopp. dara jotuma man koor gi daa teel a saf rek. Guèye Abba di koor gi naa saf ci yow liñ lay jox pour nga togg ko togg ko def ci sa biir mais yow au lieu nga togg ko solo nga koy jëndee ci pose cils pose ongle defar greffage ay eh waay Guèye maam boo am xare la dee. Hmm. toggal lekk toog fii rek rey sa biir bii biir dañ koy dundal mu toogee day mel ni luy miir. bu mettee sax bu ko wane. wala da nga toll diggante. ah déedéet man waa kay yaay ma laaj soo tolloo sa période nii période jigéen. Hmm. période bi maam weer bi nii ñetti fan moo dese wala ñaar mën nga koo anticiper do eh, Jali yow de yàlla bu mu la ñuul yow damaa ragal nga seenu weer mu kaamil. def nga foofu 36 000 francs. ligne refusée. Eh, gis nga kii. ni nga nar a def ba débarrassé ci moom moo ma jaaxal. man kii on dirait que daf may suivre chaque jour mu woo ma H24 appel sur appel. te léegi yow doo ci waxtaan ak Mass. ma chérie Mass instant yi dafa nekk ci ay problèmes yu délicat te bëgguma ko perturber benn yoon bàyyi rek ma jëm ko gérer. Hmm, en tout cas lii tamit problème la de.

bi ma demee woto ci démb si barbershop dama fa tudd tuur bidéo mais bidéo siiw na ci dëkk bi de. bidéo star la booy dafa siiw torop. non laajte waale naa sax kii seen son mari la ñu ne ma benn gain bu cool la nii de temps en temps daf romb affaire yooyu. waaw léegi laaj ci jëkkëram pour la. non non du dara bon maa ngi waaw tawal tawal tawal. j'ai l'impression que ne bidéo moo la fi indi ah booy. parce que à chaque fois suñu waxtaan lépp lépp lépp vidéo nga may wax te alors que dama bëgg xam réellement entre man ak yow sa job moo la fi indi wala sa booy bi moo la fi indi. Chérif boo wax la dëgg. waaw business andiwuma moom fi andi je ne peux pas vivre sans vidéo. comment ça booy vidéo looy wax ni dama bëgg jomal wala. plat bi lan la tey. plat bi tey poulet braisé avec légumes sautés. légumes sautés lu tax. parce que légumes yi ñu sauté moo moo gën que nga jël ko nga def togg ko avec de l'huile parce moo ëpp calorie man moom li mu wax d'accord naa si parce que ñun boo gisee erreur bi ñu def mooy. ñiy jàpp légumes yi baxal ko baxal ko ba vitamine bi ñu waroon a soxla yépp dafay dem léegi nag buñ ko jéglee def ko à vapeur dañ koy sauté rek. Mhm. waaw léegi yow mën nga dem kon nga préparer. Ido. Mhm. table ma <laughs> loolu jaru ko parce que magie bi dafa riche en fer hmm. te tamit dafa am sel iodé. xorom bi ngay soxla noonu yépp mu ngi fii ci biir. ah jaaraama ko bokk. naan moom. lu xew. tey moom ko koo daal sama kaw di di dugg. wuyu ma faama dootoo xale nag magum jëmm nga. yow wóor ba heure bi naan koor gee saf ah? mais loolu baaxul sax ci ci ci sa koor koor dafa ànd ak noppi même bu safee da ko war a muñ intérieurement. loolu dëgg la mais mais moom. musuma koor musuma jàppee nii. est-ce que xam nga affaire bi daa këpp ci sa kaw. sa xëdd yi comp comp xëdd yi. eh damay ah! sakkanal sa lii léegi moom bëggatuma des a léegi lu yem rek laay def ndax dama il faut ma rendre César kii taa donné le César. eh eh, eh loolu ànduma ci de. Ah. bul ma sakkanalal sama poos. yàq ñam moo bon mais toggal ba mu doy ña war a lekk lekk ba suur la ca des nga jël maye ji ko ñi ko soxla mais bul ma sakka bugguma loolu. togg bi rafet na te am na couleur. te vitamine la teg si. Ah, macha allah. macha allah sa décoration bi rafet na. sama gars yi loo leen wax si lii. togg bi macha allah rafet na sell ñaata nga koy noter. may naa ko 10 sur a ah bravo. yow. ah bii moom kenn amul lu mu ciy wax. au top. ñaata bàyyi ma jox ko nag. macha allah. Ah. set. lu tax loolu. ah <laughs> en tout cas daal lenn laa leen di fàttali lekk bu sell baax na torop mais mën ngeen ci boole waale tuuti sport ngeen di yëngalaale seen yaram hmm? mm-hmm. soo leen bëggee parfois mën ngeen daw parfois mën ngeen dox soo leen amulee temps nag mën ngeen def quelques mouvements seen biir salon comprendre ngeen comprendre nga kon nag nañu félicité suñu biddéew bi tey bravo ma pare naa ah, nga defaral kii de woote woon na fi dan Ah. mi ngi la doon laaj ne dafa bëgg a ñëw ndogu si ma ne ko sa benn collègue moo la invité nekkoo fi. ah lu tax nga wax ko loolu. ah ah lu tax duma ko ko wax yow da ngaa joxe benn réponse boobu ba léegi. waaw mënu ko woon bàyyi mu ñëw ndogu si rek sama yaasa bii nga xam ne sax bay bëgg a dee ma yéene ko ko. yow da ngaa defee ne dan ay yaasa ak ay lekk moo ko fi indi loolu indiwu ko fi li ko fi indi xam nga ko nee nga yow doo wujje te encore da ngaa ragal jabaram duma ko bàyyi muy ñëw fii di am attroupement ay tànk yu dem duma ko def de. mais loolu ça n'a voir. ak ñëw ndogu si mënul nga koo bàyyi mu ñëw. du ñëw de désisté na ba pare. waaw woo ko. woo nee naa ko nekkoo fi. waa léegi woo ko na ko ñëw naa. ñëw. newoo fi dan du ñëw. kon doo ko déedéet. waaw baax na. ana Ismaïla. Ismaïla ngi ci biir. dafa danga danga tiitaru rek nopp ñaw mu ngi ci jardin bi woo ko mu ñëw ñu reer Tonton Mass reer pare na kaa reer. non merci reer reer. non reer la reer. na suur na de. lan la. ah xaw ma ñu dem reer. na suur naa reer leen. lu xew baa jàmm. na dara dara dama suur rek. xanaa ndogu bi moo la jàpp. waaw dama ndogu nag bu baax nag moo tax. dem na suur naa reer leen. kaa ñu dem nga ñam tuuti. chéri suur na dem na ngeen reer. bismillah merci allez bon appétit merci merci allo noo ko bay sànq ba de maa ngi lay woo man moom sekk nañ business dafa naa ko virement sax lan la. waa lan la. Maggi moo leen